bu ko am léegi nag poids plume yim ci àndalaat damaa jàpp man ni mun ta ñàkk parce que élection présidentielle yi nombre de voix bi xalifa Sall amoon boo ko wàññee euh, ci quotient électoral bi ñu jëm parce que Khalifa Sall mën ta gagné benn département déglu li ma lay wax de Issa te comme dañuy wax yoo xam ne mhm. bu élection yi jàllee man kenn du ma vaar Khalifa Sall mën ta gagné benn département li ma lay wax comme mën ta gagné benn département moom bu mënee am député ci liste nationale la ko mën a amee. mooy le mhm. le quotient électoral. le quotient électoral. waay léegi nag quotient électoral boobu nga xam bu nekkee. cinquante mille cinquante mille voix la bu dee cinquante mille voix mooy quotient bi. Mhm. moom Khalifa Sall boo jëlee voix yi mu am ci présidentielle yi mën na am benn député ak plus fort reste muy ñaar. Mhm. maanaam benn député bu mu am selon le quotient euh, électoral ak plus fort ñaar yooyu la mën am muy ñaari député mm-hmm. au moment où nous parlons ci assemblée bi ñu dissoudre waa coalition bi la am na fa lu mat très coalition bi yëpp ñoom ñëpp boo leen boolee seen i voix daal ci gàttal ñoom ñëpp nombre de voix yi am mm-hmm. boo leen seen coalition boobu ils seront en dessous de dix députés waay léegi beneen yeneen coalition parce que mënu ma wax ci ñaar bi nga xam ne moo di takku wallu Sénégal am na coalition jàmm ak njariñ am na Sénégal kese euh, ak yeneen quarante une coalition lañ teg pour les législatives pour yow ñooñu noo leen di mesurer. dama ne ñi amoon plus fort reste sax am na ñoo xam ne duñ ñëwaat. Mm-hmm. élection yi sénégalais yi dañoo am chance bi yoon. lan jafe woon ci présidentielle bi moo am maanaam Macky Sall war a jàkkaarloog Sonko te Macky Sall ragaloon ko. Mm-hmm. cette fois si on a cette chance ka Macky Sall ñëw na. pour jàkkaarloog pas ñëw na nag waxuma ko pour mu ñëw ci réew mi di ñëw la ñëw réew moom ñëw fee teg tànk mais Macky Sall bu ñëwee ci kaso bi lañ koy dëggoon. pourquoi mais Macky Sall effectivement pour haute trahison Macky Sall ne vaut rien. taxaw naan day taxaw fii di avec rey fi Sénégalais yi def lu ko neex jaay ñu doole def gisoo bi muy dem sax daa daw. Macky Sall bi muy daw bi muy dem ci euh, jouru prestation de serment. Bassirou Diomaye Faye mais. Euh, président yi mu invité woon sax avant yow mas ngaa gis yow nga invité nit avant ñuy génn yow nga dem Issa yow si loolu def jàngat. nu muy def mais parce Macky Sall bi muy dem dafa tiit ni dañ koy jàpp moo tax président yi mu fi invité woon sax bala ñoo reer ba pare bala ñoo añ ba pare sax moom génn dëkk. kon du ñëw. mais Macky Sall ñëwul campagne en tant que tête mais Macky Sall ñemewul a ñëw fii Sénégal danañ campagne dégg leen ba mu ñëw. ils avaient euh, cinq pour cent. dama ne la. waa benn ci boppam. trente cinq pour cent yi d' accord ñun dañoo xaaju. Hmm. Macky Sall ci boobu sax mu ñëwoon ce serait formidable bu fekkoon ne mën na ñëw di campagne mais Macky Sall yow déjà gisoo barki démb rek yow moog soxnaam si ànd ak euh, am femme bu leen interpellé ñu commencé di ak moom ñoom ñoom bu ñu ñëwoon fii waxuma la mais Macky Sall bu ñëwoon naan day campagne fu muy campagne Issa dama lay laaj jëf li fi Macky Sall dund fii ci Sénégal nga xam ni mbedd yi fu mu génn ñu koy sonkorisé mu amoon ñu koy dóoreel mu amoon ay nervi am ay policier ki gendarme am yoo xam ñoo ko doon dóoreel bi yoon amatu ko Macky Sall bu ñëwee ku muy àndal di campagne ak fu muy dem fu mu dem ñu nar koo yuuxoo. pourquoi mu dem fenn mën na dem wax ci bilan bi mu fi def. dama ne dama wax ko sénégalais yi Isa Isa boo bëggee dégg-dëgg. waay sénégalais ñoo dul may sax muy taxaw naan day campagne. maanaam même bu du woon régime bi euh, wala justice di ko woo maanaam bu ne woon cëpp fu muy dem. fan Macky Sall yow bi muy dem nga xam ne campagne sax génn ci dëkk bi sax jafe na ko fu mu doon dem daawut ñu koy dóoreel pour mën faa dugg. mais ku mel noonu xam na ñëwatu fa ñoom Macky Sall xam nga lu tax muy jéem a nekk député. lu tax Macky sàll day jéem a nekk député pour retarder li koy xaar mandat d'arrêt international. moom moom lañ koy def kon. mais Macky Sall dañ ko war a ànda mandat d'arrêt international man nag samay waxi man. li ma gëm laay wax samay waxi bopp la ko dañ ko war a ah, def samay waxi bopp la dañ ko war a dóor mandat d'arrêt international moom Macky Sall. sa càkkutéef bu ne non dama ni. pour haute trahison Macky Sall dafa rey sénégalais yi rey lu ëpp cent sénégalais am ay gendarme yu fi disparaître ci nguurug Macky Sall kenn gisul Macky Sall teg ci benn jéego pour mu leer jaalewul sax seeni mbokk. mu leer nañ ne bu doon keneen sax mën noon naa rafetal jaale seeni i mbokk. mais ñu dem kenn leeralu ko. dama lay expliquer rek c'est-à-dire que Macky Sall ci boppam. Mhm. xalaat un seul instant que day ñëw fii ñu koy bàyyi muy campagne. naan day dem di wër di wax ak sénégalais yan sénégalais lay waxal sénégalais yoo xam si fi mu toll nii ñoom sénégalais yi dañoo xiif sax mu dugg si dëkk bis bu Macky Sall ne euh, cabax biir Sénégal ñu ne jàll na AIBD wàcc na ci aéroport bi. événement boobu ba sénégalais ba sénégalais jóg non kon nga xam ne lépp dëgg la. ba sénégalais yëg ne Macky Sall dugg na xoola pression bi nguur gi nar am. Mm-hmm. pour ñu jàpp Macky Sall. Macky Sall xam na du ci du ci mucc. kon du ñëw kon kon législative dafa nekk Macky Sall. li tax muy jéem a nekk député. ñaari mbir dong la. mais benn bee cëpp solo. xam Macky Sall tax mu mu bëgg a nekk député rapidement rek waay. parce que dafa jàpp ni su ñu amee ñun majorité qualifiée des deux tiers dañuy mën a euh, instituer la haute cour de justice léegi li tax mu ñëw mooy dafa bëgg tirer liste bi. maanaam comme amul kenn ku jiite parce que foofu moom ça a toujours été une armée mexicaine même bi mu fi nekk ah APR du woon mu Sénégal mu Sénégal parti. kenn ku ci nekk pëccëxoo ba sax commencé ku nekk dem nga sa bay bay bay euh, bay bayale sa bopp. léegi nag Macky Sall dafa jàpp ne moom su tiiree liste bi ñoo nekk tête de liste xëy na dina mën a engranger ay voix yu mën a empêcher la liste. la mise en place de Pastef pour mu am mu franchir la barre des quatre-vingt-dix-neuf députés. Mhm. calcul boobu la Macky Sall def. dafa jàpp ne bu ci bokkee dina mën a. Euh, xëcc liste bi tuuti pour que 99 députés yi nga am si xam nañ ne bu ñu ko amee dee nañ léegi ñoom pour ñoom yaakaar nañ ni sénégalais yi nelaw nañ nelaw goo xam ne dañuy dem di voter ci koo xam ne yaa ko fal président de la république matagul sept mois nga jox ko mission pour mu waat réew mi tegaat réew mi ci yoon am kuy xalaat fële xalaat yi kasaaw kasaaw yooyu naan yaakaar un seul instant que sénégalais yi daan kooku ñu jox seen doole pour mu soppi mi te pour mu soppi ko def les réformes nécessaires il faut mu am une majorité de deux tiers au minimum moom Macky Sall muy xalaat un seul instant que sénégalais yi mën nañoo bañ a dem jox kooku majorité boobu. mu soxla pour mën a soppi réew mi léegi nag loolu non dama ne la. mais waxoon ngeen ko fi état waruñu ko jox majorité dama ne dama ne dama ne. dama ne état loolu dégg naa ñu ciy wax hmm. état jaay doole. parce que Macky sal du comme du comme le régime là. doonagul comme Macky Sall non ñun mosuñu ko ñun duñ ko mos a doon. en tout cas loolu lañ gis. parce que non li nga gis voilà lii d'accord naa. Issa Issa li démarré xam wuute na tappale kat li démarré xam ne gisoon nañ ko ci ah, régime bële non dama lay leeralal foofu dafa am yoo xëy na gisaguñ ko ci bii yéen a ngi doo ko toog aussi. Issa. lii laa nangu lii de la sincérité temps yi da ngay dégg ay tappalekat ci yenn télé yeeg yenn rajo yi di jéem a diaboliser le régime du président Bassirou Diomaye Diakhar fay dem ba koy méngale mais mais mais mais ñii duñ duñu duñu duñu rus amuñu gàcce. dem bay méngale nguurug Diomaye ak nguurug Macky. mais xoolal moo ku tappale yooyu alors que waaw mais dama la bëgg expliquer la mais dama la actuellement nii laa wax tappalekat yuy jéem loolu. alors que xam nañ ni comme yàlla ak yàlla dama ni nguurug président Bassirou Diomaye fay du jaay doole. jaay doole jeex na Sénégal. mais euh, may ma rek may ma rek Issa. sàcc jeex na Sénégal fii ci ku ñu jox ndombay tànk ku fi sàcc da ngay abale. ku ñu fi jox ndombay tànk nga jël benn avantage bu dul am avantage yi nga xam si moom la la responsabilité bi la jox jox. nga dem wuti ay avantages indus. ak koo mën a doon nag laa lay wax. e il a dit il sans exception. le premier ministre a dit il y aura pas boo xam ne ba léegi leerul. ban euh, lëndëm na ndax dàq nañu kañ dàq am nay accusation yu jóg dal ci kaw kii kii dal ci kaw kii ba léegi leerul. na me parle pas de ne me parle pas de l'affaire. Ah, bien sûr mais mais non il faut être sérieux Issa Issa je te connais Issa plus sérieux non je suis très sérieux non non est-ce que dàq kese moo war a nekk une sanction bu war a topp ci nit ku ñuy tuumaal pour pour question bi leer boobu. est-ce que kese moo ci war a nekk. non la sanction. ku la ne kese la. moo tax may demandé. waaw mais dàq mooy mesure pour euh, bi nga xam si moom la jël. pour hmm. le moment loolu lañ mën a jël. parce que même ñi fi sàcc suñuy milliards ci jamonoy Macky Sall sax jàpp gun leen. ñoom hmm. ñoom ñëpp di. voilà donc loo gis dafa am waajal ndegam ñi fi sàcc suñuy milliards ba euh, ba fees dell ay rapport am ci ñoom. ñoom lañ woowagul di waajal woo leen nag parce que leen di woo. ñoom hmm. ñëpp la ñuy woo. maintenant waxantuma laa koo xam ne dafa am lu mu def lu dul yoon moo xam nañ koy daaneel. mais loolu daawul am ci nguuru Macky Sall loolu rek changement la boo daan sàcc xaalis ci nguuram tant que défaut lu koy yàqal du la dàq. kon xalaat nga ne dossier boobu. mais dama ne dossier boobu su fekkee am na ci lu ñu war a leeral. mais damaa jàpp ma ne amul lu ñuy leeral. xamul tax mm-hmm. Mm-hmm. parce que liñ ci bëgg a diaboliser ministre Cheikh Tidiane amul. encore une fois gis nga yow boo nekkee su tutelle d'un d'un ministre le ministre day am pouvoir de contrôle sur man mii nga xam ne sax man société nationale la SA. Mm-hmm. nga xam ni. Euh, tutelle bi nga xam si direction ONAS am na ko ak ñee sax man maa leen gën a lu may def dama ci lu les grande décisions damay demande demander l'avis ou l'approbation de mon ministre de tutelle qui est ministre de l'économie et des finance Mais ministre euh, des finances et waxul moom. donc no may ma rek problème bi man tey jii déglu ma expliqué la rek mën nañu nga défendre ko mais le problème mooy on n'a pas entendu le ministre Cheikh Tidiane Dièye lui-même se défendre est que du kon finalement bu nit ñi xamul aussi am nañ droit laajte trois mois bu ko dàqee un directeur général ñu ne lan moo fa xew. non mais écoutez loolu tamit ñu koy wax li ñuy wax amul. parce que le ministère c'est pas la personne. le ministère a répondu ministère bi tontu nañ. ñi ma dégg naan Cheikh Tidiane man par exemple Sojib mais lépp loo xam ne euh, euh, du du y a des questions yoo xam ne dama koy délégué. damay j'ai des directeurs un secrétaire général euh, voilà je suis pas obligé d'être euh, partout de répondre partout donc le ministre le, le ministre n'est pas le ministère le ministère a répondu leeral nañ li ñu waroon a leeral moi je pense que foofu nit ñi ñooy jéem a taw yi mhm. mais man li ma gëm mooy soo nekkee un directeur général dafa am fula yoon yamale ak fula la yoon yamalewul yaa may dégg donc nag foofu ay ay ay ay ruube la mais li ma la bëgg wax daal mooy coalition yeneen yëpp parce que loolu nga ma posé sànq ñu dugg ci ces questions là muy coalition jàmm ak njariñ takku euh, wallu Sénégal. déjà boo laajoon sénégalais ay jàmm njariñ takku wàllu et cetera gis nga yooyu xoolal. jàmm alsar waaw may ma rek ma ñëw non yeneen yi ndaw yi ndawaan yi moom man jàpp naa ne duñ am sax lu ma 5000 euh, voix. c'est quarante une coalition bëri na bëri na waaw bëri na ci coalition am 5000 euh, voix sax duñ ko am. mais yeneen coalition yooyu nga may limal. dama ne la gisaguma ci. Hmm. coalition boo xam ne mën naa ñëw am groupe parlementaire moom kot. kon gisaguma ko. kon il faut daal ñu démarrer. man li ma jàpp mooy. Euh, sénégalais yi duñ taxaw di fal. ñoo xam ne dañoo taxaw sàcc seen i milliards bu dee coalition bi nga xam si ñoom regroupé wu nañ et puis c' est ça qui est intéressant Issa mm-hmm. le fait que waa PDS. ak les dérivés. du PDS ñi ngeen àndaloon maanaam PDS waay. non may ma rek non PDS ànd ñoom ñoom xama def. Mm-hmm. dañoo dem xama lu euh, xama lan lañ def déglu rek li ma lay wax ni Issa. élection présidentielle xama la dañoo xam ne. Euh, candidat Bassirou Diomaye Diakhar Faye bëri ko ci mbartal la est-ce que déglu ma bu baax li ma lay wax ko ci mbartal la boo tegee sa loxo mu dem boo tegul sa loxo mu dem waa PDS xam ne amuñu pexe ñu wi boo xoolee tergiversé nañ lu yàgg nangu ñoo wax fan lañ féete biñ tergiversé tergiversé tergiversé xam nga kañ lañ ñëw mm-hmm. la dernière semaine de la campagne à quarante huit heures ou soixante douze heures de la fin de la campagne ci lañ def délégation yaa may ki nekk ndar nu mu tuddati sant fay Mayoro Faye. Mayoro Faye ñu ñëw au QG man bi ñu yegg si maa ngi toog. ñu ñëw wax ne léegi ñun la ñuy jàppale. lii moo am parce que bu ñu jàppalee ñu gañe bu ñu jàppalee wul ñu gañe. léegi nga ñoom non may ma rek may ma rek léegi nag ñoom ñooñu. yaa may dégg ñoom ñooñu. Mhm. PDS. ak ay dérivé mooy ay ay allié wala ña fa bàyyee woon créer seen i mouvement seen ñoom ñooñu la ak waa APR ñu ànd. te ci biir élection présidentielle yi di déglu li ma lay wax de ci élection présidentielle yi nu génn ñoom euh, waa PDS ñoo tuumal waa euh, euh, waa waa waa APR ñoom ñoo tuumaal waa APR candidat waaw mais waa rek xam nga noo élection du ay. kii leer na candidat ba ñu doon tuumaal dañoo dem waa PDS non mais Macky Sall mais président de la République moo gën dëggal ko def discours. Mhm. wax na ñee dañoo ger waa léegi nag kon ñoom comme dañoo ger ci biir élection présidentielle yi ba tuumalante kenn gerkat la kenn man duma gerkat ñoom ñaar ña doon tuumalante juróom-ñaari weer ci ginnaaw wala juróom-ñetti weer ci ginnaaw. ci élection présidentielle ñoom ña ku nekk doon euh, tuumaal ay magistrat taxaw ne ñoom dañ leen a ger te ka leen ger ci nguur gi la bokk kee tamit taxaw ni moom li mu wax ci Karim Wade et cetera du yoon et cetera ñu àndaat tey ñoom ñi mën a ànd tey naan Euh, dañuy ñëw pour nu tuddee seen coalition bi. takku wàllu Sénégal. Euh, gëm nga ne ñoo dañoo ñëw pour wàllu Sénégal ñoo xam ñoo rey Sénégal ñoo xam ne barki démboo ñaay ñoo fi tuumaalante ci ay magistrat yoo xam dañ leen a ger ñooñu ñoom ñooy ñëw non may ma rek ñoom ñooy ñëw pour wàllu Sénégal wàllu seen bopp xoola ñëwuñu pour wàllu Sénégal seen bopp lañ ñëw euh, gis nga ñoom li yaakaar gën Sénégalais yi gën Sénégalais yi gën Issa Sénégalais yi duñu ay dof gis nga bu ñu yaakaaree ni bu ñu yaakaaree ni mën nañoo nax Sénégalais yi ba bërki déem boo njaay ñu rey fi sénégalais yi sàcc suñuy milliards tuumaalante fi ay ger ay magistrat tey ñu mën a àndaat ñoom ñaar pour wax ne dañuy wallu Sénégal walluwuñ Sénégal seen bopp lañ bëgg a wallu ndax mën a jeex rek ndax reddition des comptes bi ñu jëm te ñoom ëpp ci ñoom ci vingt quatre ans yi ñoom ñoo luubal alalu askan wi rey fi sénégalais yi jaay fi doole sénégalais yi mm. euh, ñoo ñu nga xam ne ñoo def njombe yooyu ci vingt quatre ans yi ñoom ñoo ànd pour jéem a làq seen bopp pour wut fu nu làqu parce que bu nekkee député il faut ñu wax justice dina leen dimbali pour ñu pour ñu rëcc loolu lañ yaakaar mais ci gàttal mm-hmm. gis nga loolu li mu la mën a wax mm-hmm. mooy bu nu yaakaaree ni ci élection yi la ñuy jaaree ba du am reddition des comptes ba leen fi luubal ak leen fi sàcc ñu rendre ci compte sénégalais yi mm-hmm. loolu bu ñu yaakaar ne mën nañ ko am ci yi d' abord yi du leen voté. mais ce n'est pas une menace aussi pourquoi ngeen di ko brandir à chaque fois. mais mais mais Issa ñun brandiruñ ko. de justice comme wax. xoola ñun brandiruñ ko sénégalais yi xam nga lu ñu mere. lu ñu mere pour ñoom danoo yéex. yàlla xam na ko. dañoo jàpp ne dafa yéex. sénégalais yi danoo waxuma la xoola ko de. au contraire. Mm-hmm. xam lu sénégalais yi di wax man toujours mbedd mi su ma ci rombee dama dàmbooj lu ngeen di xaar ci dem jàpp sàcckat yi ak raykat nit ñi nga xam ñi ngi doog ñàkk nguur gi mais ñi ngi leen di bàyyi ñu yore seen làmm ñu rëy ci télé yeeg rajo yi mais dem na leen ngeen ngeen ngeen wax leen ñu rendre compte ci suñu alal jin sàcc sénégalais yi dañ ñoo mere ci temps bi nga am alors que nguur gi xamul tax muy jël temps mm-hmm. parce que nguur gi buggul singali kenn nguur gi buggul a jaay doole kenn nguur gi dafa bëgg lépp jaar yoon président Bassirou Diomaye fay du moom mooy woo ay magistrat ki procureur na leen jàpp leen ak leen du genre boobu donc loolu moo tax ñun Euh, bu doon Macky Sall ba tey jàpp na leen mais ñun du ñu def loolu xamul tax parce que nekkuñ ci par parloo nekkuñ ci jaay doole parce que xamul tax ñun ragaluñ leen xam nga Macky Sall bu ko doon def lu tax mu ko mm-hmm. doole ñi nga xam ne daa bëgg ñëw ci moom mm-hmm. ñun xam nga lan la premier ministre Ousmane Sonko wax président de Pastef nee na ku nekk opposition ba heure bii wala nga ku nekkoon ci nguur gi te doon leen jàppale nga ànd ak ñoom bañ daanu demal nga opposé wu mais bul yaakaar da ngay ñëw ñu lay làq parce que ñun gëmuñu transhumance mais loolu kay ku ko wax kon doo dem singli kenn ñun xoolal singli wuñ leen xam luñ bëgg mooy alal jin luubal alal jinu sàcc jaay doole bi ñu def mm. ñin ñin fi rey ñu leeral ko